ci yaay lii lañuy xaar ci jigéen bu ci nekk ci ñun c'est vrai qu'au début euh, jotuma woon jël kàddu bi pour nuyoo donc damay delluwaat rek di leen nuyu di nuyu euh, monsieur le maire di nuyu euh, monsieur Diouf également ku lim Dioum rek en tout cas di nuyu monsieur Ba di nuyu ñëpp mais également di beral nuyu ki nga xamante ni man dama considérer que ni sama yaay la suñu modèle la en tant que femme leader également muy Adja Moussoukoro donc di ko di ko nuyu di ko jotali tamit nuyu gouverneur monsieur Alioune Badara Meng moom xam nga ni moom bëggoon na ñëw ndax genre jotaay yi daf ko yitteel mais dañuy jàpp ni charge liggéey bi moo tax mu mu daal di may yebal damay gàttal rek daal di tënk di rafetlu déjà euh, thème bi ngeen jël di rafetlu également campagne bi nga xamante ni da ngeen ko articuler ci thème farlu ci sama jàng lu am a am solo la je pense que dimanche 11 rek ñoo ngi doon célébrer journée internationale des filles tey ñu ñëw fii sa démontre encore une fois de plus que vous êtes des femmes d'action et je le dis tout le temps yemoo leen rek ci wax ko da ngeen koy jëfee te loolu lu mot a fësal la bu ñu jógee ci loolu xanaa na leen plan d'action bi nga xamante ni peut-être jotuñu ci woon wax di rafet lu plan d'action bi di gis gis nañu tamit euh, ci activités yi ngeen euh, nar a dérouler en tout cas je vous dis que nous serons de tout cœur avec vous également dinañ ci dox dinañ ci wax n'hésitez pas à chaque fois que de besoin plan d'action bi dañ koy jël def ko suñu plan d'action bu ko defee mu nekk pour la réussite des filles de Kaolack mais également d'une manière générale pour la réussite des filles de tout le Sénégal ndax ñun looloo ñu fi téye donc dañuy gàttal rek daal di tënk daal di peut-être lever la séance ndax je pense que ñi nga xamante ni ñoo ma jiitu ci micro bi la ñu waxoon rek matoon na jox jotu euh, aajuwul woon sax ñu ciy dolli dara bu ñu gisee i tamit ñu andi benn petite explication am na ñoo xamante ne xam naa dinañ ne ah ñi seen cérémonie bi kat xumb na mais lenn lañ ci war a jàng lu am solo mooy culture place culture ci véhiculer message bu ñu war a def tey jii bu ñu déggee sketch bi ñu def bu ñu déggee euh, aji jaara ba muy commencé wax c'est vrai que ñi nga xamante ni dañoo respecté orthodoxie administrative dañuy bëgg genre cérémonie mu am nu muy demee mais aji jaara boo ko dégloo déglu message bi nga xamante ni am na solo bi mu bi mu véhiculé nga xam ne lii bu ko defutoon kat cérémonie bi dina am lu mu manqué waaw donc nee na dama jàpp lu am solo lu mu wax nee na moom junni yu ëllëg moo ko gënal téeméeru tey et je pense que ñun ñëpp au delà même de l' aspect financier xaalis rek waru tax a jóg au delà de l' aspect financier loolu dafa war a nekk benn leitmotiv boo xamante ni ku ci nekk war naa mën a toog wax ni man kat sama doom ma xaar mu tekki ëllëg moo ma gënal fuuf ma yàkkam ci tey saax saaxi avenir am mm. góor baax na jigéen baax na loolu la ñuy dee di wax chaque jour et encore une fois de plus femmes yi nga xamante ne ñoo nekk Kaolack et je le dis souvent Kaolack daf ma marqué à travers les femmes wax nga ko sànq ci sa njëlbeenu kàddu nee nga sama première sortie bi ma def ci yéen la woon effectivement te it boo xoolee Kaolack que ce soit MCR que ce soit IA bi fi nekkoon aji musukaro nga xool maire bi ñun ñëpp ay jigéen lañu donc ça veut dire que ñun fi ñu dem ba yegg si c'est vrai que yàlla moo ko yàlla moo ñu ko jagleel yàlla moo ko doxalee noonu mais tamit képp ci nekk rek xale bu ci nekk war ngaa mën a am ay modèle ak référence ci région bi donc loolu rek message la bi nga xamante ne warul yem fii bu ñu génnee ñu tasaare ko dëkk bi yëpp wax ngeen am ngeen réseau bi vraiment c'est un réseau vaste dem na ba Gambie Donc, que ce soit pas seulement les femmes, de, les filles de Kaolack, wala les filles du Sénégal qui soient concernées, mais que ce soit les filles de la sous-région d'une manière générale. Mauritanie, vraiment, Guinée, vraiment, Koulim Djoum, vraiment, di les remercier. di cérémonie bi neexoon na liñ daal li ñuy dee di wax ni ala daw me na allié nañu l'utile à l'agréable donc euh, di leen jaajëfal di leen remercier di leen euh, ñaanal kendal jàmm je pense que c'est ce qu'on dit en tout cas je lève la séance et à très bientôt pour la clôture inchallah merci beaucoup euh, ah ouais, la campagne de sensibilisation pour le retour des femmes lu ñu wax je m'engage je m'engage donc lu ñu donc dama bëgg dama bëgg bu ñu procéder à l'ouverture solennelle de la campagne de sensibilisation pour le retour des filles à l'école ñun ñëpp ñu waxandoo je m'engage. C'est bon Donc, au nom de Monsieur le gouverneur de la région de Kaolac, nous procédons officiellement au lancement de la campagne de, campagne de sensibilisation pour le retour des filles à l'école. Je m'engage. Ok, deux Hein? Donc, Titourou, monsieur le gouverneur de la région de Kaolac, ñoo ngi euh, lancé nuñ koy waxee waaw ñoo ngi lancé officiellement campagne bi nga xamante ne pour sensibilisation retour jeunes filles à l'école ñun pendant le Covid et après le Covid surtout donc pendant et après le Covid donc nous nous engageons merci